waa salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di ziyaare waat rek rafetlu taxawaayu journée bi yépp fa mu tàmbalee ba fi mu toll nii waaye comme ni ngeen ko xamee toujours ñun suñu liggéey dafa nekk ne dañuy fexe am suñu ay nit ci biir ñu ñuy informer en temps réel lépp loo xam ne euh, nar na doon gàllankoor ci liggéey bi ñuy def rek ñu daal di ko jël wax ko doomu aadama yi ci lu mu gën a gaaw ñu alerte li nekk di xew au sein de l'APR lépp Mame moo nekk ci ginnaaw ay responsable APR ñoo activer Mame comme le ministre de déstabilisement de déstabilisation des élections moom loolu mooy liggéeyam li ngeen gis noonu démb ci siège u APR bi ñuy joué seen jeu caaxaan yooyu di naan wala euh, nervi APR yi dañoo mer ak di yu ñàkk xorom yu kenn xamul dañuy ñaan sénégalais rek bu kenn daanu ci piège yooyu borom caq du xeex ak borom baatum neen yéen continuer leen concentré wu totalement ci élection yi ngeen continuer massifier mambay ñaaw mambay ñaaw moom lañu active pour mu saboter élection yi à tout prix mambay ñaaw ba mu génnee noonu attaque Amadou Baba ak caaxaanam yi muy def ñun suñu yoon nekkul ci Amadou Ba mais li ngeen dégg yépp ñu naan nitu Amadou Ba yi ñoo attaqué diw ak nitu Amadou Ba yi ñoo attaqué diw Amadou Ba amul ay nit Amadou Ba amul ay nit yu mën a attaqué kenn yu mën a déstabiliser kenn c'est Mame Mbaye Niang qui a été activé par le président de la République par le membre de l'APR pour saboter élection yi waaye c'est peine perdue dañ leen di waxaat rek ma Macky Sall puus nga bës nga sa xol ba yegg fii Macky Sall te xam naa la ndax dangay déglu lépp lu ñuy wax danga koy déglu ci suba ba guddi jot dañ lay dànkaafuwaat ñun deman bokk naa ci ñi nga xam ne wax dëgg yàlla bëgguma la respecté wu ma la gëwuma la en tant que président waaye dama ne dellu leen ginnaaw ci sabotage u élection yii sabotage u élection yi ngeen nekk di def bëgg ay semer bordel pour élection bu mu am génn leen ci te ngeen dellu ginnaaw te ngeen ne mambay ñaa mu toog parce que mambay ñaa mënul perturber kenn mënul troubler kenn ne mambay ñaa mu dellu ginnaaw te toog élection dina am ci Sénégal te incha allahu rabbi dinañ leen ko ab remportel ci lu mu gën a gaaw Mambay Niang moo nekk ci ginnaaw bordel yi ngeen gis ñuy créer lépp Mambay Niang moo nekk ci ginnaaw mi ngi activer marron du feu seen marron du feu xaw ma marron luñ ko tuddee APR mi ngi attaqué mi ngi caaxaan mi ngi filmer naan waaw nervi yi dañoo mer wala bëgg Macky Sall jàppale leen dama ne nañu concentré wu ci élection yi jomaay mooy sonko sonko mooy jomaay borom càq du xeex ak borom baatum neen dañuy alerter tout le Sénégal tout entier que Mame Mbaye Niang mi ngi provoqué na dellu ginnaaw na dellu ginnaaw teg ay ndëndëm xam nañu li xew ñun duñu ay dof duñu ay ngaaka ay nandite pire nga dégg gis nañu tey Racine Talla ma ca RTS mu xañ Bassirou Diomaye Faye temps d'antenne amul problème may nañ leen ko yéen waa RTS ndax daanaka ñun musuñu am dara ci RTS n'attendons rien de l'RTS législative jàll na fi amuñu dara ci RTS élection locale jàll na fi jëlewuñu dara ci RTS donc ñun soxlawuñu RTS ndax RTS beaucoup amin pour être modeste pour être modeste et gentil man maa leen gën a siiw RTS bu Sénégal man maa leen gën a siiw téeméeri yoon te ñun Bassirou Diomaye rek lañ ciy wax ak Ousmane Sonko donc ñun nekkuñu ci seen caaxaan yooyu ñun on n'a pas besoin de l'RTS garde leen RTS te ñu focus nañu focus macha allah mention spéciale ci ouverture jour d'ouverture élection mention spéciale terrain akapes macha allah toj ngeen fa dama ne visite de proximité yi na yokku na jolli dem leen defi ay visite de proximité comme ni ma leen ko waxee bëgg bëre bañ bëre bu leen neexee yéen waa APR continuer leen jóg di saboter élection yi au lieu ngeen dem lijjanti seen candidat bi Amadou Eh, eh, eh, janjallo ba au lieu ngeen dem lijjanti ko waaye Amadou Pita doo lijjanti Amadou Pita de yéen ñun ngeen bëgg a lijjanti ñun bu ñu bëggoon lijjanti Amadou Pita yéen xam ngeen ne ñun xam nañu ne Amadou Ba juddoowul Sénégal Amadou Ba il n'est pas né au Sénégal il est à Pita dama bëgg ma wax dara amul benn mag ci Sénégal buy ñëw taxaw ne moom moo fekke woon ngénte Amadou Ba wala moom moo fekke woon fu ñu ko tuddee Amadou Ba juddoowul Sénégal je n'ai rien contre les Guinéens mais les Guinéens en Guinée pour des élections les Sénégalais au Sénégal pour des élections les Maliens au Mali pour des élections les Burkinabés au Burkina pour des élections les Ivoiriens en Côte d'Ivoire pour des élections loolu la ñu wax on dit aux frères et sœurs guinéens enlevez vos dans les élections des Sénégalais Parce que les Sénégalais ne mettent pas leur nez dans les élections des Guinéens. On vous supporte à 100%. Encore une fois, mes frères et sœurs guinéens, décalez-vous des élections des Sénégalais. Ken Boumlen Dougal, que personne ne vous mette dans la merde, dans le mal avec vos frères. On est des frères, on est des voisins. Mais le jour de notre, de notre scrutin, Toute personne que nous allons attraper, essayer de frauder notre élection, il va perdre la vie. Il faut le savoir. Toute personne qu'il paye, que tu fais du banditisme, que tu, qu'il une carte et que tu dis que tu vas venir au Sénégal pour voter et saboter les élections du Sénégal, tu vas perdre ta vie. Tu n'iras pas en Guinée en vie. Tu n'iras pas au Mali en vie. Tu n'iras pas en Guinée-Bissau en vie. On va voter et on va sécuriser nos élections. Il faut le savoir. Et si je vous le dis, croyez-moi, on est très bien financé et très bien préparé. Il faut le savoir. Nous sommes prêts à tout, mais nous voulons des élections libres et transparentes. C'est tout. benn nit nous n'accepterons pas nous n'accepterons pas que personne sabote nos élections Parce que nous ne sommes pas en mesure de saboter les élections de quelqu'un. Personne. Il faut savoir cela. Maintenant, beneen affaire sénégalais yi ma wax leen ko te ma bëgg ngeen taxaw ci fan yëpp dégg nañu Pape Alé Niang di ko wax fan yëpp dégg nañu Pape Alé Niang di ko wax Pape Alé Niang est un journaliste d'investigation on a besoin de notre fichier électoral pour nu càmbar ko ci ni mu gën a gaawee on n'a pas besoin de deux semaines pour le faire le fichier quand on nous le donne demain les techniciens et les <coughs> et les experts de Diomaye 2024 dinañ ko càmbar te dinañu xam li ci nekk yépp dama ne donnez-nous remettez-nous notre fichier électoral Macky Sall te nga bàyyi problème maki dellul ginnaaw ci bépp pexe bu bon boo ne te nga bàyyi pexe bàyyil pexe te dellu ginnaaw te nga wax màmbay ñaa mu wekk ay saboom mambay ñaa neleen ko mu wekk ay dàllam si il sème le boucan au moom du ko fekkee njabootam duñ ko fekkee donc bàyyi leen loolu xel dama ne élection yii dina am incha allahu rabbi le 24 mars te ku man sa morom mooy daan te ku yàlla dogal ne mooy daan koo koy daan fa may tëjee Macky Sall dem ngeen passé seen loi d'amnistie assemblée nationale bu leen neex pour protéger yow ak say ñoñ nga ne aussi danga ci protéger waale ña nga xam ne dañoo bokkoon ci benn mbir ci 2021 yow Macky Sall yaa ko wax kenn wax loowu la ginnaaw bu ñu passé loi boobu juróom-benni fan nga am pour ratifier ko juróom-benni fan nga am bëgg nañu nga bàyyi Ousmane Sonko mu ñibbi këram bu leble bër boo mënta fay fii ak ñaari semaine Ousmane Sonko dina génn boo leen ko bàyyiwul tey wala suba boo leen ko bàyyee xam leen ne leble ngeen loo xam ne buñ leen ko fayee du leen naqari waaye gis nga boo leen continuer jàpp Ousmane Sonko ci prison boobu ba ñu dem fi élection ba ñun ñoo dem génnee Jomaay ak usman Sonko ci prison boobu dina am ñu leen remplacer et on vous au même jour bàyyi leen loolu xel bu ma doon yéen ngeen bàyyi Ousmane Sonko ak Jomaay ñu ñibbi seen kër jàmm ne ñooy ndax wax dëgg yàlla ñun am nañu programme ku am programme am nga lu la doy ku amul programme moo amul dara moom moo leen tal mais ñun dañu am programme on a un programme fiable on a un programme que nous pouvons utiliser pour pour émerger le Sénégal pour changer le Sénégal nous on a un programme fixe et ce programme on va le dérouler pour un Sénégal meilleur mais le banditisme que vous êtes en train de mener dans ce pays est inadmissible et inacceptable il faut l'arrêter Arrêtez avant qu'il ne soit trop tard. Mambay il faut reculer et arrêter ton banditisme que tu es en train de faire. Les Sénégalais sont au courant. Yen, bolen woluul sen candidat. Lolu sen problème la yena ko tannon. Mais laissez-nous en paix. Laissez les Sénégalais aller aux élections en paix et en toute tranquillité. Fimune, taluñu len. Gay, continuez len. Jomay moy Sonko, Sonko moy Jomay. Si bien men fulbe. musidɓe am fulɓe fuuta ko onon mi wowlanta ɗum ɗo waɗon feere noon andon komi wowlata kon ko élection woni e nder sénégal haala noon heewi e guine par que fof wi amadou pita ko pita jeeya amadou ba ko pita jibina hay goto ala e sénégal yiiɗo amadou ba ñande dennabo mum donc ɗum fof menen men acciri noon guine ko guine mali ko mali sénégal ko sénégal waɗe feere kala ko wawɗon ota naate e piiji ota ɓe naatin on e fiiji e fi élection e sénégal par que ɗum si on waɗi ɗum ko ɗum wonata mettere ɓurde mawnude e ɓernde mon gila allah addi on e adduna ota meme guineyen mo jeyaka e sénégal si ɓe falama natude e ɗi bandiji yagal wi mimmi natata e ɗi jooɗo ka bitik ma jooɗo ka galle ma toppitoɗa piiji ma acca sénégalais ɓe ɓe toppito votti maɓɓe kala ko naaduɗa ko wona goonga wallahi billahi tallahi lazim a yoɓay joddidin noon sattay few acciron ɗum hakkille on jarama allah jarama voilà gars yi merci beaucoup encore inchallahu rabbi jomaay 2024 programme bi mi ngi jomaay 2024 point com xam ngeen ko donc na ñëpp dem jëli pro programme Diomaye 2024 ñun ñëpp ñu liir ko càmbar ko xam la ca biir képp ku xamul demal nga jël Diomaye 2024 programme bi nga liir ko parce que ñun déjà on invite les Sénégalais à ne pas voter seulement pour voter dañu ne voter leen ak seen xel mais pas ak seen xol loolu lañ leen wax voter leen ak sen xel mais pas ak seen xol gars ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm waa asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatu waaw envoie-moi le document Sidi Fall waaw tu peux me l'envoyer je pense que tu m'appelais un peu plus tard euh, un peu derrière là voilà donc euh, tu peux me l'envoyer incha allahu rabbi merci beaucoup